tey nag dañu fas yéene woon ñëw rek répondre quelques questions ci suñu parcours professionnel ak li ñu motivé tey pour ñu nekk coach eh, ma présenté wu kon. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه chers internautes chers abonnés maa ngi leen di nuyu leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen tey nag dañu fas yéene woon ñëw rek répondre quelques questions ci suñu parcours professionnel ak li ñu motivé tey pour ñu nekk coach. ma présenté wu kon maa ngi tudd Fatimata Dieng ñu gën ma xam ci Fatima Zahra Dieng euh, maa ngi juddoo Sénégal euh, plus particulièrement Thiès yaru Dakar maa ngi Italie maa ngi basé wu en Italie Italie depuis bi may am samay âge vingtaine naa ci laa ñëw Italie Euh, à l'époque j'étais très jeune donc durant cette euh, cursus la yàlla dogal na aussi ma jël sama parcours professionnel daal di commencé di jàng di formé wu te ni maa ngi liggéey ci lu ñu wax socio-sanitaire assistance en relation d'aide aux personne euh, handicapées donc depuis lors aussi ma daal di découvrir li nga xamante ni tey mooy développement personnel mu fasciné ma à travers xëy na des difficultés yu ma doon dund man personnel ma travers aussi difficultés yu may gis sama entourage ko dund ma jóg nag fas yéene wu formé wu fas yéene uti xam-xam sàkku xam-xam ngir mën a accompagner samay moromu jigéen donc je me suis formée en développement personnel et en thérapie conjugale ngir mën a accompagner doomu aadama yépp yi nga xam ne dañ nekk ci difficulté dañ nekk ci ay problèmes yàlla dogal nag depuis 2020 j'ai vu que le besoin c'était grand et que fallait que métier bi génn donc ci la ñu commencé nekk ci réseaux sociaux yi ci la ñu commencé aussi daal di euh, ubbi suñu entreprise en coaching nga xam ni léegi dañuy former des femmes chaque année dinañ am ñaari séance de formation yu dure quatre mois donc def cette année si mën nañu septembre lay dure ba janvier après ñu daal di tëj jëlaat année bi pour daal di dem ba septembre du coup mu nekk ay formation yu macha allah ñuy former uniquement les femmes pour l' parce que ñoom ñoo gën a nekk en demande donc avec ça mën nañ ne donc suñu euh, entreprise coaching mu ngi basé wu en Italie dañuy liggéey en ligne donc suñu site internet tey ku bëgg jël rendez-vous. Euh, pour entretien personnel entre man ak yow pour waxtaan pour xëy na euh, génne say problème jooyante li nga xamante ni tam mooy sa dund pourquoi pas mën nga jël rendez-vous ñu accompagner la et li nga xam ne aussi mooy suñu formation yi mën nañ ne saison bi moom déjà c'est bouclé donc macha allah chaque année ñu gis famille di gën a ñëw di gën a nombreux parce que yàlla dogal na ci suturaam ñu ngi def ay résultats yu extraordinaire macha allah. ci noonu mën nañ ne euh, coaching bi dafa nekk loo xamante ni tey balaa dara di xew passion la balaa dara di xew ku ne xam ne ni ñun femmes sénégalaises yi balaa dara di xew dañu bëgg dimbali dañu bëgg soutenir dañu bëgg assister mu nekk loo xamante ni à la base dafa nekkoon loo xam ne passion la bëgg-bëgg la yàlla dogal depuis lors tey sëy si indi ma fi yàlla weddi sëy boobu demul donc ci situation yu xat-xat yu métti yooyu ma nekkoon j'ai compris que ni euh, situation yi ma nekk y a de femmes yoo xam ni soxla nañu ko leen tàllal loxo man à l'époque soxla woon naa ku ma tàllal loxo gisuma ko donc je me suis volontaire pour taxawu jigéen ñëpp nag que ça soit ñu nekk ci situation yi tar yooyu wala ñu nekk ci yeneen situation pour dimbali leen pour génnee leen ci xat-xat yooyu ñu nekk ngir ñu xam ne àddina kat y a toujours de l'espoir il ne faut jamais perdre de l'espoir parce que dans la vie kat bu ñuy avancer il faut que ñu xam ne paq-paq yi ñu ngi fi natt yu ñu ngi fi. ni euh, solution am na. solution yooyu nag bokk na ci li nga xamante ni mooy développement personnel psychologie euh, outil yu ñuy servir pour ce que ñu accompagner bépp doomu aadama bu nekk en détresse liggéey bi jigéen ñi ñu ngi ciy sóobu ñu ngi ciy jéem a euh, adhéré di jéem a def lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir mën a changer seen dund joyanti seen dund parce que gis nañu li nga xamante ni tey mooy njëriñ yi. waaw difficulté yi am ci coaching bi tey euh, mën nañ ne mooy juste que ne coaching bi c'est pas aussi connu que ça nit ñi xamuñu ko lool du coup dañuy dégg stéréotype yu nekk dañuy dégg aussi amalgame yu nekk parce que aussi y a beaucoup de gens qui ñi nga xam dañuy def euh, dañuy sol mbubu court te fekk na amuñu amuñuy outils formé ñu xamuñu sax fu ñu jëm comme li may faral di wax na tout le temps naan du question nit ki dafa éloquent dafa neex laa mere la du question aussi nit ki euh, dafay def mbirum séduction wala di euh, jaay ay bagages jigéen rek coach la <laughs> du question tamit nit ki day animé télé rek coach la non il faut se former parce que y a y a des yoo xamante ni vraiment dafay permettre nit ki nga mën a am uti yooyu accompagner doomu aadama yi ndax li ma ko waxee dund doomu aadama yi du ay fowukaay. waaw Firdaws Coaching tey entreprise la mën nañ ne depuis 2020 la ñu commencé nekk ci réseaux sociaux yi parce que def nañu ay formation yu bëri mënuma ko compter sax d'ailleurs jàppatuma ñaata la mais depuis 2021 ñu ngi def ay formation en développement personnel ak thérapie conjugale accompagner jigéen ñi xale yi mag ñi ndaw ñu góor mais suñu formation yi nag c'est réservé euh, particulièrement au femmes waaw li ma gën a neex ci coaching bi li ma gën a neex ci coaching bi mooy des fois da gis ay nit ñoo xam ne soo xoolee gëstu nga xool fi nga leen jëlee à travers ñoom tamit effort yi ñu def ak gëm seen bopp ak fi nga leen indi da ngay kontaan da ngay sant yàlla parce que da ngay xam ni yàlla suñu borom kat ndakate jàngoro bu am utal na ko saafara. ndax bu ñu fàtte ne difficulté problème mën na yóbbu ci nit ci dof mun na yóbbu nit ci feebar mun na yóbbu nit ci dépression mën na yóbbu nit ci volo yu bëri suñu yàlla dimbalee tey may ñu am euh, benn tuuti lu ñu xam ba mën di jëlee nit ñi ci cas contexte yooyu indi leen ci dund bu gën googu kon dañ ci sant yàlla. waaw suñuy rêve ak suñuy ambition mën nañ ne euh, mooy dund rek ba yàlla suñu yàlla suñu borom dogal. ñu mën a am suñu entreprise tamit Sénégal pourquoi pas am suñu école de coaching mën a accompagner les les les femmes leen former aussi pour ñu transmettre liggéey bi parce que je me dis liggéey la bu war a law te dafa war a law ci xam-xam pas dafa war a law ci ay wax ñi kase comme ni ñu koy gisee mais dafa war a law ci xam-xam bu ñuy partager donc euh, loolu bokk na suñu ambition def aussi ay conférence pourquoi pas donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy mbëbët daal waaw macha allah. voilà sañse bi macha allah euh, dañuy góor góorlu rek parce que en tant qu'une femme musulmane et tout dañuy jéem a fexe tamit attirer femme yi pour ñu daal di xam ni nit ki euh, même bu dara war nga mën a euh, jaamu sa borom topp sa borom te du la tere mel ni nga war a mel. ndax jigéen ñu bëri tay li tax ñuy ragal muuraay euh, mooy tamit bañ a perte seen beauté. incha allah suñu coaching aussi dafa basé lu bëri ci volet spirituel bi mooy incité jigéen ñi à ce que ñu gën a dëgërlu seen borom incité jigéen ñi à ce que ñu gën a jege seen boroom gën a gëm seen diini gën a pratiquer ndax loolu mooy li nga xam ne mooy suñu fondement. Euh, hijab yu rafet yi mën nañu daal di ñëw tudd ki nga xam ne Nabila Hijab Store. nga xam ni col yu rafet yi ñoom ñoo koy defar balaa dara di xew dañuy daal di saluer seen liggéey seen jàmbaarte daal di leen di encourager ndax tey courage la tey képp koo doon muuru mën naa ne bu yàgg ba tey problème bi nga doon am mooy takk sa hijab mu rafet ndax di nga ko pik fii pik ko fee muy wadd fii di kii fee mais dangay sonn jël temps mais Nabila hijab hijab yi dafa pratique dafa simple dangay ñëw rek sol dem sa yoon dangay gagner du temps vraiment dafa nekk loo xam ne ba pare dafay refléter beauté africaine parce que daf def dafa def loo xam ne daal c'est c'est waaw parce que gisoon nañ fi hijab naar yi c'est hijab yu pare yi gis nañ fi beaucoup de de avec Nabila Hijab fi ñuy génn seen style seen façon hijab yi ñuy defar rafet na trop te dafay euh, mettre en valeur li nga xam ne mooy la beauté de la femme africaine kon dañ ci dañ leen ciy sant ñoom tamit di leen gërëm di wax ni daal ñoom ñoo ñu solal def ñu nii man seetloo tamit tout le temps ñuy laaj sa hijab ko jëndee ku la ko jaay wala noo ko defaree noo defaruma ko Nabila Hijab moo ñuy solal hijab bi rafet yi macha allah donc di leen wax ni képp ku leen bëgg a mën nga dem ci réseaux sociaux yi nga def Nabila Hijab store di nga leen gis macha allah ak seeni hijab yu élégant yu rafet nga xam ne tey mën nga xëy liggéey n'importe quel endroit boo fay dem war nga ko mën a sol c'est clean et bëri na ay modèle modèle bëri na ay couleur bëri na ay motif aussi ñu gis nii euh, vraiment pratique nañu ay nit yu liggéey am ci fulla am ci fayda boo kiiwee macha allah livraison bu automatique kon dañ leen di jaajëfal ñoom tamit di leen jox suñu reconnaissance di leen ñaanal yàlla aussi ñu xam leen partout dans le monde ñu dund aussi ba macha allah mu nekk des boutiques et des boutiques et kon ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di kontaan di leen jaajëfal ci ànd bi ñu àndoon ak yéen kon di leen wax ni képp koo xam ne rek bëgg nañu suivre mën na tàppe Firdaws Coaching partout Facebook TikTok euh, Instagram euh, Facebook. ak suñu site internet pour ku bëgg jël rendez-vous wala ku bëgg am benn entretien ak ñun donc mën nga cliquer aussi ci suñu site yi pour jël rendez bu ko defee nga daal di gis tarif yi gis aussi naka la ñuy liggéeyee gis aussi suñu parcours suñu cursus et kon mbokk yi ci loolu ci lañ leen di wax ni partage leen ngeen abonné di la asalaamaaleykum wa rahmatulah merci beaucoup.